di leen wax ngeen abonné ci chaîne bi di l'oreille du monde TV te bés cloche de notification bi ngir ngeen di mën a jot seeni vidéo à temps réel waaye itam mën ngeen ñu bàyyil seen xalaat ci commentaire bi ndax l'oreille du monde TV yéen la fi nekkal ngir di jaamu seeni soxla. mbokku internet l'oreille du monde TV asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu te di leen jaajëfal ci déglu bi ak topp bi. ñu dikk ak yéen ci ab xibaar bu fi ruusee daal di ñeel ki nga xamante ni mooy Pape Alé Niang di ab journaliste d'investigation moom taskatu xibaar bi nag ña nga ñuy xamal ni dañu ko daal di teg loxo ci ndigalu procureur de la république lu waral lu ni mel nag mooy fan yi live yi nga xamante ni mi ngi koy def ñeel dossier bi nga xamante ni mooy Sonko aji Sarr moom Pape Alé Niang moomu nag mooy borom Dakar Matin di faaxal di def ay chronique fi mu toll ni ñuy wax ak yéen bu ñu sukkandikoo ci Seneweb moom Pape Alé Niang ma nga fële ca commissariat central ñu daal di leen toppal xibaar bi rek ba xam fu wànne di mu jëkki wetam lu wér lu wér a wér te wóor mbokk mi yow mi am jafe-jafey koom-koom maanaam dangaa bëgg a am alal juyaatu lool mbokk mi yow mi lijjanti këyit mu taw a sotti baa nga nekk ci place bëgg faa sax yow sa wér gu yaram dafa sooxe danga am hémorroïde wala boog danga am ndoxum siti yow jigéen danga bëgg am doom baa nga bëgg am borom kër demal nga seeti Thierno Soubaba Baro moom yàlla may na ko ci lool Thierno Soubaba Baro nag yéen ñi nga xam ne daan ngeen ko faral di seydi jóge na fële jamono ji mi ngi ci diggante Sénégal ak Gambie mën nga jokkoo ak moom ci numéro yi ma lay bëgg a jox 78 443 45 07 wala boog nga daal di yokk moom ci numéro Gambie bi di 220 257 88 04. jeex na su Baba Baro yàlla may na ko lool ngir mu daal di mën a faj say soxla.